fii ci commune Hann Bel-Air encore une fois man li ma ci yitteel li ma intéressé parce que booy xeex mbir da nga koy tàmbalee ca la nga maîtriser mooy sa dëkk ci sa koñ ci sa biir kër fii à Hann Bel-Air boo ko xoolee am nañu quatre cas 80 cas coronavirus ba mu commencé ba tey donc bu ñu la nee 80 cas cela veut dire que bari na population il li leen yitteel mooy dañ naan mais 80 cas yi naka la mën a mais effectivement parce que barina na loo xamante ne tey fi bu fekkee ne ay cas importé là maanaam ku jugee dëkk ak dëkk mais loolu ci début ba mais ba ñu tëjee aéroport yi amatul léegi li am c'est les cas importés cas contact pardon bu ñu cas contact moi fréquenté nga koo xamante ne amoon nga ko donc ci origine bi yow njort nga ne que contacté nga x kooku amoon na ko mu jox la ko beneen cas bi nga xam ne cas bi nga xam préoccupation ñëpp c'est les cas communautaires te fii ci commune Hann 18 cas communautaires ba mu commencé ba léegi donc bu fekkee ne da nga jël des cas contact 68 nga daal di jël cas communautaire 18 ak cas importé 4 benn analyse rek ngay def ci résultat yooyu parce que aussi

wala nga gis ko am masque def ko ci sikki ci bar bi wala nga gis ne ko waa saay doo tol sa max mu daal di làmb poche bi génnee sol masque donc de ce point de vue am na benn prise de conscience boo xamante ne dafa am solo pour que population yi mën ko am mais li nga xam ne moom nañu bëgg en tout cas bàyyi ci xel di profiter ci émission pour faire de la sensibilisation dañuy ñaan suñu mbokk yi nañu sol ay masque coronavirus mi ngi biir commune Hann Bel-Air dañu bëgg sensibiliser

daanoo laal gel doo sol masque parce que jàpp nañu ko loolu bokk na ci li nga xam ne mun na wàññi risque bi pour que virus bi mën a propager wu.